您家妈妈 Mouhamadou Makhtar internet yu ni suivre moon nañ leen bu baax a baax di leen nuyu di leen jox seen waay del si ngeen si seen journal wàccaayu appel comme niñ koy defee saa su nekk ànd ci ba tey ak Jàmmalaahi Events Layen Digital ak ñi nga xamante ni ñooy Nuurul Mahdi tey nag dañ leen demaloon yoof ginnaaw jumaa bi ñu amal leen fa benn micro trottoir bu am ma am solo sunu ndaw yi ñu fa yabaloon jëlal nañ ñu fa waxtaan yu am solo dañ leen koy dégtal rek te dikkaat. Ah, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo la koy delloo. tur bi nan la. tur bi Aliou Kalaay la. d'accord léegi Aliou Kalaay maa ngi bëggoon xam tey ji ñu la gis nga génne si jumaa bi euh, xutba imaam lan la woon ci petit résumé rek bu ndaw. waaw waaw ñu ngi ubbikoo sunu turu borom rek euh, di julli ci yonentam bi di ziar xalifatul muslimin Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye dëgg yàlla tey euh, ñu ngi nii door a génn ci jumaa ji waajal nañ ko ni ñu ko war a waajale macha allah yàlla na nu yàlla nangul lépp. bu ñu duggee si jàkka ji itam imaam ñëw na bi mu ñëwee itam ubbi ko na ci turu boromam ci sang bi Seydina. limaamu laay alayhi wasalaam waaye xutbaam yëpp ci li mu ko li mu ko tënk daal boo ko mënee tënk mooy appel bii di waaj a ñëw nii la ñuy la ñuy jaaja pour ñu gën ko waajal euh, mu jëlee ko nag ci aaye boobu nga xam ne mooy sa lillahi wa li rasul nañu wuyu ci yàlla ak yonente bi bu nu woowee kon loolu loolu daal la commencé xutbaam jaajjaat nit ñi wax nit ñi ne laayeen yi amuñu lu dul dat bu ëpp bu ëpp euh, appel bii ñu jëm nii moo ginnaaw korité ak tabaski appelu laayeen bi moom moo moom moo moo moo ëpp solo ci ñun dëgg yàlla muy tombeek premier Sha'ban muy ñu ñaan ñun ñëpp ñu waajal ko mu ne jeunesse bi aussi nañu góor góorlu euh, ak wane seen ak njàmbaar roy ci Seydina Limaamu Laay jigéen ñi itam bu ñuy roy nañ roy Seydina Limaamu Laay ci liñ war a nekk mag ñi itam bu roy nañ roy Seydina Limaamu Laay ci liñ nekk loolu daal mooy résumé mooy résumé bi nga xam ne moom la ñu war kii ci nu mu tuddati moom la ñu war a kii ci moom la ñu war a waajale appel bi. góor ak jigéen mag ak ndaw ak jaamu ja ñoo ca bokk yam loolu la jigéen ñi dégg ba tax na ñu am taxawaay bu mag ci appel bi soxna si ñu ngi lay nuyu. Euh, mën nañ xam tur bi nan soxna Amy Laye. soxna Amy Laye dëkk fa ba fan. Géej Caaroy Géej. ngi lay di la ziar ah, ban taxawaay ngeen am ci appel bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla di julli ci sangub sangay Seydi Lawalina wallaahi dina ni bambay la alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu xalifa Seydina Baye Abdullahi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér lu mu fi yàgg rek mu gën ñu waaw muy njariñu àddina barke Baye laay di ñaanal rakkam yi ñu yàgg fi ñoom it te ànd ak wér yàlla yàggal kànd gi te may leen ak waaw ñu ngi ci waaj waajal oote Baay Laay bi tey de alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy waajalee comme d'habitude ñu ko jaar waajale waaw ñu ngi waajal ci côté yëpp ci daayira yi ñu ngi waaj lépp ñu ngi waaj commission yëpp ñu ngi waaj ndax amuñu lu dul woote Baay Laay alayhi salaatu wasalaam bu tedd bi ndax maam baylaay Laay mooy këñu diine mooy këñu àddina daal moom moo tee jamono fi mu nekk nii moo. sëtëm bi Cheikh Baye Abdoulaye fi xalifatul am yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér na fi yàgg lool ànd ak ak képp ku ko wax yàlla na la yàlla boole suñu lu ñu ngi barke Baye Laay ñu ci wàccaay bi bu baax macha allah. léegi euh, ban kàddu appel ngay lancé jigéen ñi à travers. Euh, appel euh, jox sa mbokku jigéen. waaw ñi mooy xale yi nañu yokk yar gi surtout nañu yokk yar gi. yaru nan mais nan ko gën a yokk dañ leen ci ñaaxaat ñu yokk yar gi comportement bi colin gi surtout ak muuraay gi waaw ndax ku gën bàyyi laay alayhi salaatu salaam dëgg yonante ak roowalaa isa li bàyyi ñu yar na yàlla yokk leeram ndax ne laay comportement la du ci colin du ci jëfin comportement la waaw ñu ñu yokk yar gi yaru nan lool laay maxtaar yal na yàlla xeeb dolli waaye nan dolli ndax dolli ndax ñun ay royuwaay lan ndax dana deg ci mag ñu ñu ne bayran dana deg ci ay waxam mu ne ku sol mbom weex dafa la neex tok ba tay ñoo ngi suñu micro trottoir señ bi ñuy lañ la. waaw ma ngi leen di fay. tour bi nan la. ma ngi tudd Aliou si Aliou si ñu bëggoon xam tay sa taxaway en tant que jeune Layène ci appel bi ak préparation appel bi no leen koy no leen koy préparer appel bi. waaw ah, macha euh, ñu ngi sant yalla bu baax euh, di julli si sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. bu ko defee nag euh, appel bi vraiment ñu ngi koy préparer en tan que jeune waaw si fànn bu nekk maanaam économiquement ak euh, si wàllum diine aussi tamit euh, si suñu ay daayira yi nga xam ne tey jii nii si lañ bokk ñoo ngi koy ñoo ngi si farlu quoi di jéem a xool nu mu mën a def pour appel mun a jëm sa kanam macha allah. ñu ngi ziar Baye Ablaye Thiaw xalifatul muslimina di nuyu ay rakkam di leen ziar. di ziar ay domam ak batam di len ñaanal yalla yalla nañ dugg si bismillah genn si alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi wajal appel bi nak bu baax jël nañu sunuy matuwaay bu dé set setal rek fi la fekk baax ndax piste dafa amone parcel mam bay lay jël ko fa andi Cambérène moy sunu jam ñun ñep aduna gep bay Seydi Thiaw may 360 4 hectares waaw kii Balia am Dakar maam Seydi dajale Cambérène gépp ñu jël maam ay seen muy dugg di ñëw bal yi di tàkk mu di ko romb te dara dalu ko kon ñun bu ñu nee lii mën nañ ci dara ñun waa Laayeen am na luñ ci man mën nañu lépp ndax maam Baye Laay ba mu ne aji boo daaya laay la pare yaa ma saraxtal insi wal jinni la pare inni rasulullah ilaykum la pare mu ne ku am dërëm booy jox Momadou jox ma ka ñu di ko jox ay gurda di ko jox ay gurda booba gurda mooy dërëm tey ñu di ko ko jox mu ne bu ëllëgee bu ngeen ma gisul gisul leen Momadou mu naa mu naka ñu gaan ñu ànd seeti moom Momadou kon loolu leer na lu dëgg waaw sëtam def appel muy Baye Seydi caw dem Baye Paraan sëtam ñëw def appel dem bàyyi Ablaye yàlla na fi yàggate wér moo xi rakkam ak njaboot gi ñun daal pare nañu sunu lépp pare na car macha laaw la cat maa ngi ziyaar nag bàjjen yi di ziyaar aji ndey kumba di leen ñaanal wér ak mucc ak muccale jërë ngeen jëf laay maxtaan gis ngeen ko neewoon mbokk yi mu nekkoon suñuy ndaw soxna Maguette Laahi ak soxna Fat Laahi ñu jëlal ñu waxtaan yu am am solo ginnaaw jumaa bi foofu sa yoof si njiital imam Mouhamadou Makhtar Laahi gis ngeen ko noonu mu nekk pèlerin yooyu saxaaba Seydina Limaamu yooyu kaddu yu ama am solo yooyu ñu yëkkati lépp si waajal woote bu sell boobu di 140e commémoration de l' anniversaire de l' appel de Seydina Limaamu Laay kon gars ñu wàcc rek te xam ne bis bi ñëw na jaaxi jëlal nañu ñi nga xamante ni ñooy waa làmb ñu gën leen xam si Layène assistance médicale dañuy dem xool élément bi rek te dikkaat laay Mamadou Makhtar laay laay comme ni ko suñu góor gi waxee kooku di ngi fiy jàmmalaay lépp ci waajaay appel bi ñu fi toog ak waa laam sëñ bi tur bi naka la ak lan mooy laam lan précaution ngeen war a jël ci appel bi laay Makhtar. bismillahi rahmaani rabbil alamin laa xawla wala quwwata illa billahi man la Ismaïla Laye Ndoye vice président Laan assistance médicale yaakaar naa ni question bi ñu posé dinañ ci sawar tontu trop muy lan mooy laam laam ni ngeen ko déggee mooy Laan assistance médicale bi nga xamante ne dafa boole ndaw yu nekk ci domaine paj kon nuñ ko mën a waxee muy dentiste bi muy médecin bi muy infirmier bi ba ci aide bi. ñooñ ñoonu ñoo composé làmb waaye lu ci gë ëpp solo mooy ñooñ dañoo gëm yonentu woote si yonentu woote Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam bii nii ba nga xamante ni démb ca Màkka ren tey ci mujjanteel bi yaakaar naa ni mu feeñ ci der bu ñuul ne maa mu feeñoon Màkka feeñ fële ndaw yooyu ñoo toog gis ni jot na bañ jàngee wàllum jot na ñu booloo boole seen doole tuddee seen bopp Layène assistance médical ngir jàppale couleur bi yaakaar naa ni loolu mooy làmb beneen question bi ma posé dinaa ci gën a sawar tontu mooy Layène assistance médicale lan lay def ci appel bi a ah, ñun de yaakaar naa ni bu bàyyi laay wootewul woon tey duñ toog fii naan appel te ba mu wootee ku nekk daa xaaju ñëw gëm ko layan nak assistance médicale mu nek ay ndaw ya nga xamantene dañuy liggéey ci appel bi ci seen njit mën nañ wax ni moy médecin chef bu district bu yof bu Maguilène sangor ñu ngi koy nuyu diko sante sant remercier muy docteur Diop. benen bi mënuñu wax lam diine ji mënu wax ben waxo groupement central yaakaar naa ni. laam tamit mu ngi ci biir groupement central ci biir amical de santé des Layènes laam nag dina faral di am benn paiement ba nga xamante ne mu ngi nekk ci ginnaaw jàmmalaay ci côté parking bi moom kese fay nekk ay éléments am waaye ci paiement yooyu am na yeneen paiement ya nga xamante ne laam dana fa yóbbu ay éléments am te ñooñ docteur Diop moo leen côtoyé au niveau de laam yóbbu leen fa ñu mun ko waxee muy douze paiements muy fukk ak ñaar bërëb yi nga xamante ne dañ fay faj mun nañ ci lim kër sëñ Ablaye mën nañ ci lim kër Imam Makhtar mën nañ ci lim kër Serif Ousseynou ba ci école de laam tamit dañ fa intervenir ba ci biir yoor yoor bi laam dañ jël ay éléments am wàccee leen biir jàmmalaay ngir ña nga xamante ne buñ déggee seen baatu taw tawxiit seen xol day tooy ba duñ ànd ak seen sago laam dañ leen jàppale ba ñu retrouver seen état normal yaakaar naa ni loolu la laam di jàppale di liggéey ci appel bi wasalaam. kàddu yu rafet na sell na daal waxtaan kàddu yu rafet na sell na bu ñu déggee daal maanaam li ngeen wax mooy laam daf fi nekk rek pour diine ji te ku wax waxum Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ba wax wooteem bi xam nga ni mbooloo dina fi daje te mbooloo bu fa dajee lu ne dina fa xaw kon suñu médecins yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba tax na damay dénk sama micro kii di seen président moom tam mu wax ñu précaution yi ñu jël pour appel bi ndaxte gis nañ ni adduna bi instant yi am na ay euh, virus yu fi dugg te mbooloo la ñu yor moo tax kon maa ngi nuyu sëñ bi di la jox sa wàcc wàccuwaay di la laaj lan précaution ngeen jël pour appel bi. Euh, Laye Mamadou Mokhtar.

dernière nouvelle liñ ci jot moy sen état mu ngi évoluer favorablement manam ñu ngi tané bu baax baax a baax donc ministère chaque jour mu ngi def communiquer bo xamné day def état des lieux manam def ñuy wan fi fièvre bi toll ñu koy rafetlu lool donc li jëm ci appel ak prévention fièvre bobu non di coronavirus ñun waa Layène assistance médicale en collaboration ak euh, le médecin-chef de district de Yoff, le docteur Diop, et également la commission santé du gouvernement central des l'AYEN, l'union des jeunes l'AYEN et également l'amicale des élèves et étudiants LAN. taxaw un thème pour la population la communauté de pour pour expliquer ce nan la manifester ak nan lañuy moytoo feebar boobu noonu coronavirus doon na feebar boo xam ne mën naa ne jege na grippe lool ndax tey ji ñi mu dal ni muy feeñee seen yaram daanaka bopp buy metti la sëqët la yaram buy tàng la fatiguement la ak yeneen ak yeneen donc loolu tant defuñu test bi wala nga nekkoon en contact ak koo xam ne am na feebar bi ñu xam ndax simple grippe la wala coronavirus la donc jege na grippe lool lool lool donc li ñuy ñaaxee askan wi Baay alayhi salaam ci ay jàngaleem daanaka wax na ko nee na Layeen day set donc set moom moo ci jiitu liñ mën a protéger woo mooy fu ñu toll ñuy raxas ay loxo ak omo saabu eau de javel wala lu mu mënta doon. amna na également ay gel yo xam dañ koy jaay pharmacie mu ngi tuddu gel hydroalcoolisé buñ ko mëne di utiliser pour nettoyer loxo yi lool nañ koy moyto maintenant bo démé ba nga xamné fièvre bi dal na la wala nga suspecté nga ne moom la ya mëna at ñi nga dendeel aussi nan nga leen aré boy booy wa ila nga jël mouchoir nga taf sa gémmiñ nga sëqat bo paré nga sanni ci poubelle wala bu dee yor nga masque aussi nga dal di def sa masque te nga toog sa kër bañ a génn di lor keneen boo mu nee woote numéro bi 15 15 nga woote ñu ñëw sa kër ñu defal la test bi xool ndax am nga ko wala amoo ko nga bañ a lor ñi nga dendel laan assistance médicale ba tey ci prévention ñetti fan bu desee ci appel bi muy Cambérène di Ngor di Yoff suñ ay éléments dinañ wàcc ci dëkk yu sell yooyu noonu daal di éduquer nit ñi bu baax gën leen xamal lan mooy feebar bi expliquer leen nan nañ koy moytoo distribuer leen ay masque ak ay gel de mais comme ça ñu mën protéger wu bu baax a baax a baax loolu noonu dina am ñetti fan bu desee ci appel bi incha allah ñu ciy woo ñëpp ñi ci mën jàpp ñu ñëw jàpp ci. Laye Makhtar noo ko déggandoo lan mooy seen kàddu gu mujj ci appel bi la euh, voilà. kon Laye Makhtar li ñuy tëjee mooy dellu di di ñaax. di ñaan pèlerins yi nga xam ne dañuy ñëw ci appel bi euh, ñu tënku ci digle yi nga xam ne waa Kër Docteur teg nañ ko pour mën a aar seen bopp aar itam ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñëw ci appel bi incha allah di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu cim ndam lu rëy ñu àgg ceeg jàmm incha allah barke bala alayhi salaam ñu ko gisanoo mbokk mu nekkoon soxna Mati Laaxi àndoon nag ñi nga xamante ni ñooy waa laam Layeen assistance médicale ndax xam ngeen ni yi lépp loo leen gis wér-gu-yaram dasee am solo ñu yëkkati kàddu yu am am solo énuméré nan différents points focaux yi nga xamante ni fa lañ war a nekk ci appel bi lépp ngir waajal bis boobu waaye tamit sensibiliser na nit ñi ci li nga xamante ni moo lëmbe jamono muy jàngoro boobu ñuy wax Covid 19 kon ñëpp nañ ci bàyyi xel te waajal bis boobu muy appelu Seydina Limaamu Laahi bi lépp ci ak sell ak dal ndax hygiène dafa am solo waaye naka noonu mbokk yi demaloon nañ leen nag fi nga xamante ni mooy jàmmalaay fekkat fa ñi nga xamante ni ñooy waa vision 129 ñi nga xamante ni du ñu tàyyi ci defar bërëb bu sell boobu noonu muy lay bu am solo boobu noonu sunu ndaw soxna Maguette ak soxna Faat Laay jëlal nañ ñu fa élément yu am solo dañ leen koy dégtal rek te dikkaat Mustafa ala Muhammadin sayyidul rasaa'il wal majaa اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب العرب والعجاب في ak سخنة soxna bu سخنة سي lan moo la motiver ba nga ñëw ci liggéey bi ginaa bañ la nuyoo. ah maa ngi leen ñu fay laay maxtaar ah li ma gën a motiver mooy dañuy woote te nit ñi war a ñëw wuy si ñu war a yaatal sellal ndax gan yi ñëw te set tamit buñ ko waxee diine la waaye defe naa si yoof ak si woote Seydina Limaamul Mahdi bi fii la gën a war a ëppee moo tax ma ñëw participer si ci gën a taaralaat bërëb bi daal pour gan yi ñëw. ginnaaw Seydina Limaamu dafa woote ci set ak laab lan ban message nga mën a lancer sa mbokku jigéen ñi. ah ci set la ñu nekkoon rek xanaa ñu gën euh, setalaat daal yokk farlu gi gën a yokk farlu gi daal gën a setalaat ak tamit gën a yaatalaat daal fu ñu yaatal tamit kon ay gën ay ñëw bu ñu ñëwee bu ñu fekkee fi ñu ñëw set a sell dina am jàngat bi muy indi si ñoom mooy ñu wane ne fii ñu ñëw fu sel la. ñoom it war nañ fi tooge sellin bu ñuy dem tamit ñu xam ne fu sell la ñu nekk. waaw ba tey ñu ngi ak suñu sang suñu xarit Chérif euh, Abdourahmane Laye ñu gën ko xam ci al Chérif sang ñu ngi lay nuyu. laay waxtaan ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ginnaaw bi ñu la ziaree ñu bëggoon xam ban ban plaisir nga am tey ci ñëw sa xabru maam pour bokk ci préparatif yi ci lay bi. Mhm. waaw ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di rafetlu liggéey bi defe naa ne plaisir la honneur la chaque année ñuy mën di ñëw fii. di setal bërëb bi ngir gir mana dalal gan yi chaque année gi waajal appel bi defé na depuis 2008 ba légui ñi ngi si chaque année duñ ko tardé ñi ngi si ñew donc lool plaisir mënu ko wéssu ñuy ñew chaque année di féké ci itam di ci wow waaw di ñaan yalla di ñu may ñukoy mën di féké at yu bëré bëri itam di wo ñep vraiment wa waa Yoof layen Laayeen ak wa bir de kebak wa Cambérène fu ne fu chaque fois première semaine bi ñu nekk si jaamalaay bi rek ku si mën a ñëw mu barkeelu si defe naa dina doon lu ñuy neex ndax gis nañ ni mu toll nii te mënul bu nit ñi effectif bu bëriwul rek defe naa duñ ko mën a matal ni ñu ko bëggee kon defe naa nit ñi génn mooy motal yi suñu yéene si bërëb bii nii kon ñu si woo di lancer appel laayeen yëpp lee noo laayeen ku mën a doon am yéene bëgg a barkeelu si bërëb bii nii rek setal ko ñu ngi siy woo def di si def appel bu mag na ñëpp ñëw jàpp si liggéey bi ñu waajal wooteef Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam. mu nekkoon waa vision 129 muy ñu kenn dootul présent si diine ji ndax dañ cee am solo. ñuy lay bërëb bu sell boobu nga xamante ni mooy bërëb bu Seydina Limaamu alayhi salaam lépp ngir waajal bis boobu ndax ku ne xam na ni laayeen weex tàll lañ nga xamee te ku sol weex nag fa ngay toog dafa war a set kon mi ngi noonu ñoom waa vision 129 nag ëllëg incha allah ñi ngi jëm ci mbedd yoof tàmbalee ka laayeen sar ba biir yoof waaye dimanche incha allah ñi ngi jëm foofu sa ngor nga xamante ni leer ga fa la làq woon am fa ay junniy junniy at lépp si waajal bis bu sell boobu waaye duñu nga xamante ni ñooy commission scientifique bu diine ji le 8 mars incha allah ñi ngi jëm foofu sa yoof ànd ak le mouvement des imams et des oulémas de yoof ak ñi nga xamante ni ñooy laayeenu yoof gépp di fa amal benn i conférence bu am solo ci thème appel bi muy le rôle de l' dans la lutte contre l' extrémisme ku nekk war nga koo mën a jàpp yi nag tey fii la ñuy yem ak yéen ci seen journal waajtaay appel di ñaanal ki nga xamante ni aka am xaas ndax maamam mooy borom xaas ku gëm rek dina la xaasal moom la logoor au radio visage Seydina Baye Abdoulaye Thiaw yàlla lool te ànd ak wér te may ñu xaas ci woote Look them.